lañu jóge waaye tamit ci moom la ñuy dellu dee nag di loo xam ne buy ñëw di yëgal kenn tey ji nag mu yóbb rek directeur de l'urbanisme Omar saw ci la Omar Sow nekk woon ci àdduna nag ñu bari di xamle ni du dara lu dul dimbali moroomam liste boobu la bind les bœufs de la Korité mu dëkk 15 bœufs la fa naroon a rey saraxe ko chaque Korité loolu lay def démb loolu loolu la bind soo soog a wàcc liggéey tabaski bi fan yi bi ñuy mujj wax mu teg ay xar da ma xar yii laay jaay yii laay ci bi Omar saw nekku nit ku tabe waaye tamit nekk na koo xamante ni nekkoon na locomotive bu urbanisme bu Sénégal loolee la ay collègues am xamle. Omar nekkoon ab collaborateur bu dëggu njiitu réew mi moom moo ko doon waxtaanee sax Omar nekkoon na collaborateur bu compétent Omar nekkoon na collaborateur bu baax maanaam ku généreux. Omar urbaniste la bu ñëpp xam bu avéré. jaxasoon administrateur finalement Omar romb na urbaniste il était devenu un am amam wala sax fu mu toll terewul nag mu nekk rek ab taalibe. nit ku mën a set boo xam ne fu mu njëkk a gisal yow moo lay njëkk a jox la moo lay njëkk a nuyu donc responsable bi mu yor ak mandat mandat bi mu yor. Cheikh Mouhamadou Mountakha ak njabootu Serigne Touba yëpp ña ngay Diourbel di waaj gàttanu suñu amoon sow mii. rafet dellu ci ñaan gi nekk ci yëpp ci moom bunt bu ko neex bu jaar ci. yàlla def nag moom. jafet na jot bu baax lépp lu mu nga ñaanal dina dal. seede yépp benn la nit ku responsable waaye tamit ku fonk doomu aadama mu am nag ab engagement bu rëy ci rekk lépp luy jëmale kanam ak luy suqali urbanisme bu Sénégal fi mu nekk nii nag Omar saw ñoo ngi koy rekk yóbbu Jurbel di dëkku nag ki nga xam ne moom la gënoon a bëgg di Serigne Touba.